asalaamaaleykum mbokk internet yu 5 TV te di ko seetaan mbégteeg bànneex la ñuy am saa su ne uh, dikkati rek uh, li fi gën a fës ci actualité people ak politique moom Lat joob nag ay gune daal di nañ ko fay yuuxoo Sonko rek la ñu bëgg Sonko rek la ñuy topp ak jomaay mu mel ni que nag xale yi fi ñu far nëbbuñu ko ku ci mel ni beneen candidat bu ñu yuuxoo Idrissa Seck lañ koy woowee moom it candidat la ci élection présidentielle 2024 uh, moom Idrissa Seck ginnaaw bi mu génnee ci mbedd Ndakaaru yi di amal ab campagne am gune tey doon nañ ko wax Idrissa ngi nii borom beñ moom mi xam ne ba tey xëddagul ndaxte ku wax daaw wax ne Idrissa Seck demoon na kër Ousmane Sonko amali fa woon ab waxtaan ba bi xam ne mooy Idrissa Seck génn di amal ay campagne waaye gune yaa fay tooñ leneen lu dàq neex ginnaaw waykat yi ku ci mel ni Queen Biz Dieyna Baldé naa Sey daa dinay génn daa di feelu ki xam ne mooy Abdou Guité Seck Daba Sey nag daa dinay génn ab son daa di koy jëmmal ki xam ne mooy Jomaay ak Ousmane mel ni nag fi mu toll waykat yi takku nañ ba dëgër ba séenee wane fi ñu féetee Daba Seye nag génn na woy Jomaay ak Ousmane Sonko woy wu neex way woo xam ne sénégalais yi seen xol neex na ba dàq neex message anonyme yi xam ne mooy Adja Everywhere yu mi ngi yëgal àdduna Adja Everywhere nag ma ngay lettali benn message anonyme boo xam ne benn daam la bu nekk fii si Sénégal di def social daam bi nag ku nekk xam ne ne daal moom daal moom daal noonu rek mënuñoo wax lépp waaye li ci gën a fës Adja Everywhere nee na moom daam bi ku ñu xam la ci Sénégal ku ñu xam la ci réew mi day def ay sociale di dimbali ay nit di jàppale ay nit waaye nag moom nag lañ koy jiiñ ak lañ koy waxal maanaam daal moom daal <laughs> day tuddee xale yi ayca ba tey dañuy daal di puusaat daal di continuer coowu Mario mbay ak ndaxteloo Lo ma ngay daal ngay daal di continuer eh, ki xam ne mooy eh, Mario mbay ginnaaw barki Dembo Ndiaye bu mu defee ab sorti na divorcé wul ak Ndaxte Lo Ndaxte Lo nag kaay ndogu bi xam ne ne xale yi influenceurs yi moom lañ organisé woon journalistes yi daal di koy topp ne ka Ndaxte Lo dégg nañ ne sa jëkkër mayu la baat moom Ndaxte Lo nag nee na loolu du ci debaa lool du ci commentaire vie privée takk dañ koo noddoon ba ngay def sa xew di woote Mumbaay ñëpp dañ koo yëgoon est-ce que kon tey boo divorcé jotul sénégalais xam tas ngaam tasoo waaye moom ndaxte loo nag nee na du ci débat benn yoon heure wax bu jotee rek dina ci wax beneen influenceur beneen ndaanaan beneen animatrice beneen journaliste boo xam ne ma nga nekkee woon fee ca Séné Plus muy maam Kumba moom mi xam ne moo doon def émission confidence émission bi xam ne dalal nañ ci ay ndaanaan yu mag a mag a mag waaye aussi dalal nañ ci ay homme politique waaye émission bi xam ne nag cartonné li xam ne mooy euh, mille vingt trois dugg deux mille vingt quatre moom maam Kumba nag nekk actrice en même temps journaliste waaye en même temps animatrice moom maam Kumba nag daal dinay démissionné foofu xam ne mooy confidence daal di jëmali fi xam ne mooy Touba TV moom maam Kumba nag def na ci ay révélation waaye nee na comme jóge na fa rek du ci sori li ci des daal euh, da koy teg ci loxo yi yoon waaye da koy teg lu waroon a am lu waroon a nekk liggéey la woon jeex na jeex na day passé leneen moom maam ma nag ma ngay jox ay njoñom ma ngay jox ay fidèle téléspectateur am fee TV gis nañ ne tamit ci weeru koor bi ma ngi fay amal émission bu rëy rëy rëy moom Faa Waali nag ma ngay attaqué benn fecckat daal di koy tuddee fecckat boobu perte di jaay caakiri dama bëgg nga bàyyi Marème Diallo mu mel ni nag coowu Marème Diallo Faa Faa Waali seetlu nañ ne mi ngi attaqué ñu baree baree bare attaqué na ku ci mel ni Mame sa Savon attaqué na kii xam ne tamit mooy Fanta mu mel ni nag Faa Waali kaful si digganteem ak kii xam ne démboo njaay coowu mook fanta mbub ña nga cay tudd mbirum lesbienne ku nekk yaa ngay jiñ sa morom lesbienne mu mel ni que nag sénégalais yi nee nañ jot na nag ñu taaj faam yi daal di kay ñuus ba muy bëgg dee ay ca ba tey dañuy daal di wëyali li xam ne mooy kaay ndogu kaay ndogu nag mën nañ ne suñu influenceurs yi xam ne ñoo nekk ci tiktok beeg instagram bi ñoom ñoo ko daal di amale ndogu woon que mu bi dafa demee côté gis nañ fa yenn influenceurs yi gisuñu fa yenn ni si mu mel ni que nag euh, tendance am na ci li xam ne mooy suñu tiktokeur yi ak tiktokeuses yi beneen coow nag euh, ginnaaw biñ nag MG ñii nag Modou Gueye héritage couture la ñii nag door a Gueye la nag euh, mbir ya daa dinay leer ndaxte defe naa kii di door Dora Gueye daa dinay takk raki ay dara waaye danañ sëy bi une semaine la yem ndax doo ko bett muy def yëf mu mel ni que nag kaawu mamanaa bi doon na ci leeral ne raki ay dara sëy bi am na mais durée dul quarante gis suñu mbokk internet bi daal di koy publier nee na kii di Dora Gueye takkoon na kii xam ne mooy Racky Aïdara mais sëy bi deful lu dul une semaine kase mu mel ni que nag coowum Karara ak coowum Dora Gueye ak Racky Aïdara mën nañ ne mu ngi tàmbalee jour Saint-Valentin bi ay dara jotee cadeau boo xam ne de bàgg ay jamaa la daal di siy def merci beaucoup mon amour waaye aussi daal di héberger li xam ne mooy turu Dora Gueye ñëpp doon wax dañuy génn ak du génn te li ñu gis site internet internet bi mooy euh, suñu benn naataangoo daal di koy publier sëy bi am na mais une semaine rek la durée ay dara nag toogoon na fi xam ne mooy 2STV euh, daal di def déclaration am di wax Bijou Ngoné kii dama ko bëgg xale bi dama ko nopp xale bi daf maa jële ci ay guddi yu méttee méttee métti wan wa yoon di ma neexal di xool li ma bëgg saa su ne mu ciy dox Bijou Ngoné daal di koy tontu ne ko Racky Aïdara dalal man mii rek chaque année ma daan souhaiter di nank bon fête moo amour kaay ma jàngal la mbëggeel kaay ma won la luy mbëggeel xale yu góor yu début bi nii lañ lay def dañ lay neexal di la tatagal waaye xooloon nañ ne barki démb euh, kii di bi euh, biñ ko doon invité woon ci émission boobu di confidence doon nañ ko laaj ndax dangaa fiir mënuma fiiruma benn yoon waaye damaa am ay principe principe bi mooy damaa am lu may bañ damay bañ ku ma yab te damaa nekk ànd ak sama jëkkër ba muy metti ba muy ba muy naqari parce que kenn xamulee laa ànd ak moom kon du ma toog gune yu tuuti tuuti tuuti tuuti ak sama ménage mais commentaire yi sax da nga doon gis ñu nag ay dara xale bi xam ne vingt-trois ans la am mi ngi yëngal sëyu am naax amul internet yi daal dinañ koy publier nee na am na waaye une semaine la durée euh, Raja nag bokk ci influenceurs yi ñu gën a seetaan ci weeru koor gi moom Raja nag nekk ko comédienne boo xam ne day marqué empreinte am weeru koor waaye gis nañ ne weeru koor ak ren gi dafa gën a rakkaaju dafa gën a fën dafa gën a mën lool lu muy def waaye ku nekk xam ne ne ànd naag benn duo boo xam ne sénégalais yëpp kontaan nañ ci mu ànd ceeg bi bis beneen ndaanaan boo xam ne ne ku ku ne bébé Eva ku ne ñaanku wax digganteem ak bébé Eva dañoo seetlu ne ñaanku weeru koor bi gisuñu ko bébé Eva nag ba bu série ñaanku di daw xam ne da ngay gis commentaire yi ñu nanka ñaanku eh, bébé Eva mu mel bébé Eva nag bokk ci actrice yi xam ne joué na rôle ñaanku def na fa lu am importance ba tey dañuy nag bébé Eva moom aba daal dina coppet bébé Eva ci loxoy ñaanku daal di koy yóbbu gaale no stress gaale no stress nag fi mu moom moo yor ki xam ne mooy bébé Eva ma ngi fay nekk di jouer lu am solo jërë ngeen jëf mbokk internet 5 TV jërë ngeen jëf lépp lu ma fi wax mu nekk erreur rek maa ngi tuubaat di jéggalu bu baax a baax